mel ni que le 7 mars ñëw na ba pare nga boole ñaari champion muy Angleterre ak Madji Madji euh, fan ngeen toll ci préparation yi. waaw alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi ci dernière euh, préparation yi parce que lamba ji moins de dix jours nañu wax daanaka lépp ci li ma yaakaar lépp daanaka yemb na. di ñaan yàlla tey dañ doon def li nga xam mooy remise de drapeau ci waa union régionale de mutuelle de santé daanaka euh, ñu ngi ci dernier réglage yi daal ci lañ nekk nii waaw. li war sa diggante ak CNC ak li war sa diggante ak mbëri pour combat bi mën a am le 7 mars yëpp daal yow matale ko. waaw ba daanaka daal lépp yemb na bon préparé daal la 7 ñu ñëw bëri ko si jàmm euh, ku yow ku yàlla jox ndam li nga xam ni yàlla yoon a jox ndam li parce que li may wax si ñaar ñi man dama leen mënuloon fay parce que wax naa ko sànq ci biir signature bi parce que ñoom ñaar ñëpp samay xarit lañ tey bi ma taxawalee combat bi kenn ku si nekk mënoon ngaa xëcc li mbëri di wax ci problème mu cachet mais defuñu ko ñu ngi nii dama ko wax seen kanam. kenn ku nekk ni mu gën a oyofee ci man rek noonu nañ ko waxtaanee ñu def ko te dañu nekk samay nit Madji sama xarit la kii ñëw dëkk sama xarit la. xale yi bëgg a bëri lan moo tax. ñu bëgg a bëri waaw bëgg jàppale tam Ouzin Production te gis naa li nga xamante ne noonu lañ may jàppale parce que jàppale la mënul weesu foo leen woow ne leen dama bëgg a def signature wala dama bëgg def remise de drapeau ñu bàyyi li ñuy def lépp ñëw xam nga mbër jafe naa déplacé deux heures nga téye ko fi ba cinq jafe na nga déplacé ko mais ñoom man dama leen ko jaral moo tax man li ma leen di ñaanal mooy ñoom ñaan ñëpp ñu am wér ak fekkee man làmb ji maa ko tëgg mais bu ma sañoon du ma ko def dóor ma sañoon dama ko def dama ko def mbapat parce que dañoo samay xarit xam doo am say xarit ko bëri dóor dañoo nekk sama xarit ñoom ñaan ñëpp kenn ku si nekk daa am foo féete ci man moo tax man ma ko def simple ñoom ñaar ñu bëri ñu mbapat ku yàlla may dem nga dem mais xam naa ni maa tëgg combat mais dina diis trop arbitre sifflé ma taxaw di seetaan combat bi kooku moom yàlla mi ngi man maa ngi am kii boobu noon daal xam naa ni taxaw di seetaan ñuy dóorante moom man dana am lu ma métti trop dama leen di ñaan ñoom ñaar ñu bëree ko ci fair play bëree ko si jàmm ku yàlla may ndam nga xam ne man ngeen may na la ndam di wax ni toujours tamit yéen aw ma seen fay. parce que loolu ku wax lamb wax sponsor fo sponsor toll à part à part euh, ñi nga xam si ne moom mooy euh, couverture maladie universelle bi. waaw sponsor moom dañ ci comme li gars di def rek ñu ngi bind di yónnee. mais yàlla dogal na boo gisee mbër yi kenn ku ci nekk solo sa benn tenue sponsoring ku nekk da ngaa indi sa yërëm moo lay wan ni amaguñu sponsor mais fu ñu xam pour dem fa nañ fa dem ñi nga xamante ne ñoo ñuy jàppale ci làmb ji mooy waa union régionale de mutuelle de santé. parce que ñooñu ñoo ci commencé dugal seen xaalis pour làmb ji yegg ko wax arène nationale ak frais d'organisation ya fa ne. métti na trop ci promoteur bi door a ñëw waaye ñoom tamit vraiment ñi ngi dugal seen loxo bu baax ci làmb ji à part ñoom aw ma keneen ku ci dugal xanaa ki nga xamante ne mooy ministre de la jeunesse te ay promesse nañu def te am nañ ci moom yaakaar parce que du waxantu moom femme la boo xam du waxantu li mu wax ñi ngi koy déglu. bu ñëwee alhamdulilah parce que tournoi de la jeunesse bi am ci biir làmb ji muy combat spécial ñi moom nañ ko parrainé te ñi ngi am yaakaar ci loolu noonu incha allah. waaw boo jógee le 7 mars fan nga jëm Ouzin production fan la jëm prochaine journée fan kañ la. bu ñu jógee le 7 dañuy attaqué le 21 ci li nga xamante ni mooy li tournoi 300 litres bi le 21 adresse Senghor bu ñu jógee fi foofu rek fan la ñuy attaqué incha allah bon dinañ def presque deux journées mais ñi ngi am yaakaar bala ñuy koor bëgg nañ defaat beneen lutte avec frappe mais comme sotteegul te benn stade moo fi am muy arène nationale suñu mbokk promoteurs yi ñëpp fan la ñuy tëggee. ñu ngi négocier xool nan la def bu amaat fa benn journée bu ñu ko amee moom bala ñuy woor nañ ko def buñ ko amul bu ñu kooree ba pare dinañ ko def incha allah. ñu bàyyi la nga woote ñu tàggatoo foofu. waaw ki may woo mooy euh, ñi nga xamante ne ñooy responsable yi nekk géejawaay di ci jiital responsable politique ñu koy wax Lat Diop vraiment sama nit la sama xarit la. bon bras am di Bakary Sidaat ñoom ñëpp vraiment maa ngi leen di woo ci bés bi beneen euh, ki may woowaat mooy le maire Alioune Sall muy euh, maire département bi. ñun ay jeunes am lañ ay njabootam lañ ñu ngi organiser ci 300 lutteurs war a démarrer la set ñu ngi koy woo ci journée bi. parce que tamit vraiment ku mën a jàppale jeunesse buy liggéey la ñu ngi koy woo ci loolu di woo ki nga xamante ne nag mooy per Amadou Fall. parce que Amadou nit la boo xamante ni dafay dox ci social di dox ci li nga xamante ni mooy jeune bu nangoo yëngatu kooku suñu père la dëkk Golf Sud ñi ngi ñu am ci moom appel bi ñu koy lancé pour mu jàppale Ouzin Production. parce que wax dëgg yàlla am nañ ci moom yaakaar te dinañu jàppale parce que vraiment xale bu jóg dem ci këram am soxla mu faj soxlaam ku baax la muy paa boo xamante ni vraiment lépp lu mu bëgg ci biir golf di ñu ngi ko koy ñaanal lépp lu mu bëgg lu dul golf sax ñu ngi ko koy ñaanal kon moom ñu ngi koy tàllal loxo muy père Amadou Fall su ma waxee Amadou Fall nag wax naa père Top yaa ngi dégg parce que ñoom mooy bras droit maa ngi leen di tàllal loxo ci li nga xamante ni mooy sama làmb ji incha allah. waaw wax Ouzin wax staff Ouzin production bi yëpp. waaw staff yi moom boo aw ma seen fay mi père Modou Bey ki nga xamante ni mooy père Birahim Ndiaye Khalifa Badji Gora Mbaxal Moussa Fall ñoom euh, aw ma seen fay daal. parce que 300 litres dox ko yombul mais depuis boobu ba léegi lii 6 mois ñu ngi koy dox te ñoom ñii rek ñoo koy dox kon loolu aw ma seen fay di leen sant di leen gërëm. yow moom aw ma sa fay bàcc vraiment gis naa déplacement bi parce que tey ku la woo deux nga ne ko maa ngi Malika nga jóge Malika jël taxi ñëw seen nit dong moo la ko mën a def damay ñaan seen sit bi yàlla nañ dund ba mu doon télévision te li ngeen ci bëgg yàlla nañ ko yàlla defal di sant ñaar ñaari mbëri di la sant yow di sant sa caméraman bi di leen sant bu baax wasalaam. Sénégal Buzz 221 mooy sama collègue bi ma woo sànq Thiam. waaw waaw waaw borom Sénégal Buzz kon moom it amuñu fayam 221 vraiment ñu ngi suivre say affaire ci net bi mooy macha allah ñu ngi leen di sant leen gërëm wasalaam. Thiandoum SBT ñu ngi leen. waaw salaamaaleykum doom yaay waaw waa SBT Média welcome dal jàmm. fan nga toll ci préparation le 7 mars bi. waaw comme d'hab comme ni ñu daa préparé moom man athlète la sportif la man moom làmbu du ma xaar sax ba am combat rek entraîné man chaque jour ko jëfee maa ngi ci entraînement bu ñu woon na ma suba suba combat pare naa fi ñu toll nii macha allah pare nañ lépp ñu xaar ñaan yàlla rek yàlla may ngi dab. waa na xale bu takk ci bëri ngay dajal de. waaw xam nga loolu lépp amul solo nit bul xool sa qualité morom xool sa qualité li nga am parce que ko la am lay duggee marché man am na li ma am daal wóolu na ko sa fonk naa ko respecté ko trop. non xam na ne yow ndaanaan nga ci wàllu làmb moo tax li tax Ouzin booy leen yéen ñaar ñëpp ay ndaanaan ngeen ci wàllu làmb ci wàllu bëre mais est ce que xam nga combat bi nga jëm ni parce que dafa mel ni que da nga war a maanaam da ngaa xaw a xeeb sa adversaire waaw non xeebu ma ko adversaire kenn du ko xeeb soo doon bëre mbër mi gën a tuuti wala mbër musul bëre du ma ko xeeb làmb kenn du ko xeeb xam nga combat bi naa la mooy sama premier combat dama jàpp ne mooy sama première sortie ci làmb arène nationale sama première journée moo nekk ci arène nationale ba ubbeeg léegi ñaar moo war a bëre drapeau Guédiawaye drapeau ministre ministre de la jeunesse moom mu dëkk Guédiawaye ma dëkk Guédiawaye war a bëre drapeau am war a jugee géejawaay ñëw kon drapeau daa war a ñibbiwaat géejawaay kon kon fooyu ma ko kuy bëre drapeau ministre boo ko foowee kon damaa jàpp ne xamoo li ngay foowee xamoo sa bopp. mu mel ni fan yi xaw na am jafe-jafe te làmb bu yàqu ñun ñëpp la yàqul bu baaxee ñun ñëpp la baaxal ban message ngay lancé ci non violence bi nga xam ni fan yi nemmeeku na. waaw xam nga bañ ak làmb ñëw dëkk sa bañ dee mat làmb moom dagg sax tëri duñ tàqaloo ma ko sport ñëpp xam nañ mënu ñàkk violence waaye yàlla bu mu ci bu ju bëri daal football day am violence soo xoolee violence day am ñu nëbb ko protéger ko indi rafet jénn gol si nga làmb làmb d'accord ne nii ñëpp waaye nag ñaan yàlla am yàlla mu amaat c'est dama bëgg nag yéen journaliste laay wax ko jénne ci a jël lu baax ñaaw ñu koy nëbb parce que bu ñu sponsor sponsor yi loolu day tax sponsor dañuy daw mais yi ngeen jël seen ay responsabilité xool ñi ngeen àndal parce que bu fekkoon mbër ak mbër jàpp naa ne problème mais boo bàyyee benn nit jël sa benn affaire confier ko te mu leer na yow boo ko xëppee CNG yow lay dàgg wala mu avertir la donc loolu loolu la léegi nga jël loolu confier ko keneen pour mu def ko pour que dafay mel dafay mel ni ñeneen ak ñeneen donc image ñëw na nañ ñëw brusquement noonu loolu moo tax. waaw boo déggee ma euh, ko parce que nit yaay la mënul man naa def. a na ba ma dëlee bëree ba léegi musuma am coow ci làmb mu sama supporter du kenn man laa pee rek jàmm laay dox man du ma yàggal sax gars yi man damay ñëw def fulaak fayda parce que am ci xeex la jeex wala ci bëri. lamb ji bu ñu la lamb bëree tax ñaan bëri lamb la waaye nag moom lu mu indi rek si pare. day wala day yeex. wala yàlla moo xam. Ah. man daal lu ci mën a xew ne arbitre ci sama loxo laay ñaan. ah sa adversaire xam nga ne moom bu arbitre ne pire sa kaw la jëm moom. bëgg naa loolu. Ah. waaw est-ce que bu ñëwee dana egsi wala bu tey la lay fekk loolu a lay laaj. kon nga woote ñi ngay ñi nga xam ne ñoom ñoo la jàppale waaw sant yàlla bu baax a baax di sant waa gej waay parce que nit ku ne amoo fur sa gétt daman Géejawaay moo sama gétt rawat na waa Ndiarène Limamou Laye sama papa Moussa la maire bay di sey sama yaay Adja Marème Diop loolu moom mis nga ko ci man parce que man ñoo ñoo sama ñoo sama ñoo samay parents ñoo sama ñoo lépp waa commune Ndiarène Limamou bu lépp tout rawat na waa Géejawaay ak yëpp waa 100 pour cent Géejawaay tout le monde président Amina su ma ko tuddee tudd naa ñëpp waa Kër Madiaga waa 100 pour cent Thiandoum 100 pour cent Thiandoum ñett la ci waa Kër Madiaga waaw waa ko borom daaru waa Tana Géejawaay rawat na waa ñayen rawat na waa tullu Géejawaay ak yëpp waa Kaolack tout le monde daal képp kuy bëggee ci àndum rek waa Touba waa daaru waa Ngasama waa waa tout le monde daal ñu ngi ziar ñëpp di bëggee na leen seen ko de ngi tàllal loxo jàppaat kurus yi waaw garaaw jaar def jaar ñoon jaar rek yàlla may ngi tax incha allah rek bu neexee yàlla open press bi mercredi wala jeudi daal la usine wax man nag mercredi laa jàpp incha allah rabbi yéen ñëpp ngi ñëw teew waa Géejawaay ak yëpp ñëw teew rawat na sama maire monsieur le maire Boy Sèye mu ñëw teew suñu ministre bi nag ah journée de la femme la dimance mooy journée de la femme ñu war a bëree samedi drapeau bi dañ ko war a indi waaw comme mooy c'est la femme ñu ko femme sama dama bëgg sama yaay ko jeex na. incha allah am kontaan ak mbégte bu baax a baax di bëggee sama gaynde gi nag gaynde daaru gi bëggee rafet na.